ba mu nammee nekk candidat ca élection présidentielle 2019 Karim Wade dafa renoncé woon ci nationalité française am pour mën a dëppoog yoonu Sénégal parce que yoonu Sénégal dafa ni ku bugg a nekk candidat à l'élection présidentielle da nga war a rek nekk nationalité wu sénégalaise maanaam waruloo ko boole ak beneen nationalité kon moom ba mu nammee nekk candidat en 2019 dafa renoncer en 2018 à sa nationalité française ba mu ko defee sur simple renonciation maanaam day bind ni man bëggatuma nekk français nguuru France mën na ko tontu ko mën na ko bañ a tontu ba mu toogee nag ba ñu war a defaat élection bii muy 25 février 2024 dañu war a déposé dossier de candidature yi au mois de décembre 2023 ba mu koy waajal Karim toggaliwaat na demande boobu maanaam daf ko féddaliwaat bindaat beneen lettre lettre boobu mu ngi ko bind déposé ko le 26 octobre 2023 maanaam lu jiitu ñaari weer yu lu jiitu ñuy déposer ay dossier pour élection bi ñu jëm te te loolu te loolu ba mu ko defee ca fa mu nekk muy Qatar ca ambassade ba ba mu ko defee consul bu nekk bi ca ambassade Doha au Qatar jox na ko attestation bi attestation baa ngi léegi nag léegi nag Bala, léegi nag léegi nag lu ngeen war a comprendre te xëy na mu war a am muy lu am solo si lu ñu war a wax ak yéen parce que dañ leen ko war a wax. ngeen xam ko moo di nii moo di ni suñ dee déposé suñ dee déposé dossier wu candidature pour élection présidentielle kenn du laaj preuve buy attesté que ni yow tu es exclusivement de nationalité sénégalaise kenn du ko laaj da ngay def une déclaration sur l'honneur wax ni yow sa décla sa dépôt bi sa dossier candidature c'est conforme à la constitution mais amul benn pièce boo xam ne bi war nga ko joxe pour prouver de l'exclusivité de ta nationalité sénégalaise candidat yu déposé seen dossier yépp kenn joxewul papier buy justifier qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise loolu da nga ko war a xam